dem moo di magi bàyyi wala rak xew lu ne ma ni bàjjen taxaw bu góor duggee nii du doom bàjjen taxaw wayal ko mbaax waaw ni jaay di yaay kon di baay bàjjen ama maama waaw de wayu teraanga la kuy bàjjen jógal yow ne sumul sa nag bàjjen bàjjen bii sa famille bi normal na yow nag def nga lu ñaaw bàjjen lan laa def defal ndànk rek def nga loo xam rafetul doomi aadama jullit ni yow nga jël ay photom di ko partagé jël ay photom di ko publier loolu kenn rafetulu lu ko ci àdduna dañ ma ko partagé déedéet déglu rek bàyyi leen loolu tey buñ la ko defoon du la neex wala buñ ko defal sa mag wala ñu def ko sa rak du la neex am na leen loo xamante ni nit da koy am comportement bu rafet yéen boo la jógee di si si si sa sa sa sa te yéen seen xel yi dara newu ci ah waaye di leen civiliser civilisation du sañse xel mooy civilisé jugal juguma de. Eh, dama fay ñëw damay eh, ñëw pour ree juguma. Eh. jugal eh dégagé jugal yow jugal bala maa fekk ci kaw xam nga ni ma deman man dama bàyyi mu sedd jugal jàllal nii. Mm. jàllal nii acca wàccal. eh wàccal te dem. cagaan bi muy niroog lu ma xamul nii xaw ma xam eh eh boo ma tontu ma def la lu bon wàccal ci biti. acca bu ma caxas. yow eh demal yow. daala mi muy noo kuy baske nii e ci biti eh yi eh dama leen eggal seen liggéey yéen tamit dama leen eggal dama leen nga ne toll na seen liggéey dama leen man nii. waaw tax am ma mënu leen a maanu yéen. bu ah. toog leen. ca kaw ca VIP ba dama ca VIP ba. waaw booy toogal booy toogal bi tali bi laa ko jàpp jàpp jawal yow nan ngay dawalee woon te amul plat. loolu mooy lan oto boo ko dee dawal da ngay am plat. booy kii nii on est dans un pays de droit booy dawal oto da ngay yor plat même dawal oto dawal rararararar naa nga sa vitre nga teel ko ba mu ñuul kooku teel loo gis ba pare wëlbati ko yoroo plat loolu kay boo defee jagaar nan la jàppee. maa nekk ci yoon maa nekk ci yoon maa nekk ci yoon. Hmm. ni ñu koy teg ci yoon ni ñu koy teg ci yoon. mais man je vais pas oto bi dama koy fourrière. oto bi dama koy fourrière. waaye fourrière oto bi bu dee. xam nga kan. xam nga kay waxal yow. ah ban xaw ma ban ci tali bi laa ko daal jàpp yi. sëñ bi na nga def tey ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax naka xale yi baa ñu ngi ci jàmm jàmm di alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah na ngeen def xale yi yéen a ngi ci jàmm. waaw ah, yow xam naa la waaw yow xam naa la baax waaye ak jàmm. boo la mu rek. <laughs> may jàpp du ma xool ah, de man far naa la door sifflé nga kii ma droite la nga kii ma xëcc wàcce jël oto bi droite di waaye man damaa toppatoo ngari la la moom tëggatu yonent bi magga magga magga magga magga magga mag yow xamoo sax ki ngay jàpp xamoo koo war a jàpp koo du war a jàpp moo tudd al ala Diop waaw ah, nan ngay dawalee oto te yoroo plan yoroo tey vitre nga teel ko ba mu ñuul kooku ñu dawal comme ça la pour loolu xam nga ki nga jàpp soo jàpp kan la am na man xaw man tàll bi xaw ma de Mouhamed Alla Diop takkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nga jàpp man mooy ah kon yow yaa jàng <laughs>

yaa am leer gaa ngi ci lëndëm maa yay way yónneen bi yow laa xam yow li ma doon ci lay way maa gël geer ci waay waay bi ma dooree am ñun man dafa waane ñee sax nag day ngis tal yow laa gëm yow laay way jooja waay waay waay loxo ca kaw Moustapha yaay géeru loxo ca kaw sallallahu ala muhammad mustafa dama wayo nen naan bi yàlla moom képp moom dong na amal ci la nu cërale muhammadu rasulullah ba na lépp luy taar lu rafet ak luy tàkk jamaa ak or lépp lu leen dàq ko gën a neex a ci bëgg rasulullah per bu xar ma dégloo yàlla nga gisee naa bi mel ami yëfari sax dañ ko da dikki seen alal al ami ana soppay yoonen ñoo ana soppay yoonen jarbatu Seydina Muhammad li la bëgg naa bi bàjjen national aka sopp naa ey Moustapha moom aka bëgg naa ami kolle yaayu yoonen ana soppay naa maa way Seydina Muhammad nan bi naa ci yoonen bind bind xool sama bind xeeb ko ma tegaat sama xalima bindaat naa ci yeneen ah. naan mooy nazir munzir xaatimul anbiyaa'i xol bind ba xeeb ko ragal xotti fooy wa def ko te ndox wa naane tey ma bindaat ci yeneen ana soppey naa bi ku bëgg Seydina Muhammad ana soppey yeneen yéen a bëgg nabi alayhi salaam xamul yem mais tey yow toogal loolu yem waaw yonent bi am doole waay xolkati baay bàjjen amamaana waaw ne wayu teraanga la koy bàjjen jógal ne sa wuñ sa